d'un pouvoir qui qui est au départ un pouvoir de l'APR. Bon, mais enfin ça fait c'est un peu kafkaïen mais c'est comme ça aussi il faut voir ça comme ça. alors ñu ñëw ci discours Ousmane Sonko. déglu nga ko mu nekk discours boo xam ni euh, wax nga ko ci bureau juge bi la jóge euh, daal di ñëw def discours am ndax jàpp nga ni génn tey rek def discours est-ce que noonu itam lu baax la bala ñu ñëw ci fond bi ñu ñëw ci forme bi euh, ci timing bi mu ko defee est-ce que laajul woon mu gën a. xaar tuuti amuloon yàkkamti ak yooyu ndax ni mu ko defee bala ñu ñëw ci fond bi rek euh, nan nga gisee forme bi ak. Euh, mais est-ce que moom sax bokkul ci marché bi. parce que man j'étais pas d'or dama la koy laaj est-ce que bokkoon na ci marché bi wala ci marché bi. non ci gisuma ko ci bokk. il avait annoncé que ñëpp nañu dem place de l'obélisque mhm. mais comme aussi foofu amoon na échauffourée ba euh, mujj fa def déclaration mujj fa dem. bon déclaration fu mu ko defee. mi ngi ko defee ci. Euh, parce que moi j'ai suivi à la radio mais ci la ko ah, dans une ambiance beaucoup plus sereine. parce que est loin des grenades lacrymogènes. Mhm. bon alors euh, Mm-hmm. un peu comme le discours du président d'ailleurs ah. ci timing bi est-ce que par exemple ni mu ko defee. Mm-hmm. ni mu ko même pas noppaluwul deful dara dafa génn ak quelques jours yoo xam ni yaa ngi ko nekk ci ay jafe-jafe et tout mais est-ce que yàpp nga ni ci moment boobu laajul woon mu def. <laughs> mais mais je vous ai dit que euh, Ousmane Sonko comme comme certains autres. Mm-hmm. Ousmane Sonko non seulement c'est un homme politique. mais c'est un opposant. et quel opposant un opposant farouche de surcroît. alors mais moom. ne serait-ce que sous forme de message en direction euh, de ses sympathisants. Mm -hmm. il leur démontre que moom il n'est ni fatigué ni épuisé ni démoralisé. donc loolu mu def wax na ko sax nee dafa xaw a fatigué. bi ah. discours bi hmm. wax na leen ni kii wax na ko dafa xaw a. wax na ne ni je suis fatigué. mais il a démontré qu'il ne l'est pas. parce que ñëw na wax. Mhm. ku fatigué kay da ngay tëdd sa lal. Mhm. ñu même mhm. si le massage est un mot qu'il ne faut plus prononcer mais mais mais c'est un homme politique qui est qui est qui qui qui est dans son registre. alors c'est c'est non seulement celui de la mobilisation mais celui de la présence active wane ne man maa ngi nii affaire yi dara yëngaluma alors je je suis d'attaque je suis à nouveau d'attaque yooyu rek loolu la bëgg a wane. ok en politique attention les signes extérieurs sont importants. alors teg na ay conditions am nag jagleel ko Macky Sall wax na ko par exemple détenus yi ñu jàpp na leen bàyyi écoute téléphonique yi muy def. opposant yi na ko bàyyi troisième mandat bi na ci wax lu leer ak yeneen je pense mat na dix points yoo xam ni eh, wax na ko jagleel ko président de la république wax nga ma léegi c'est le ministre de la de la parole en tant que opposant mais aussi bu ñu jogee ci loolu rek pour jàngat li nga xam ne ay condition am la ay revendication am la te nee na daf koy xeex parce que mi ngi demandé révolution bi bu mu arrêté na gën a dëgër chaque semaine bu ñu mënee génn ñaari yoon ñu def ko loolu yaakaar ni mën na continuer ak ndax mën na ci am résultat bu ko bu ko jëriñ dara bon xeex boobu euh, le résultat je ne peux pas préjuger. Mhm. mais lima ma xam daal moo di il est dans son rôle. bon je vous ai dit que euh, on est dans un dans euh, dans, dans un rapport de force. Mm qui est en test. Mhm. et qui est en test d'ailleurs inachevé. Mhm. donc loolu c'est le prolongement du test du rapport de force parce que soo jógee fële ne yow tu veux dicter ta volonté alors que jusqu'à nouvel ordre il n'a pas les instruments c'est Macky qui gouverne jusqu'à nouvel ordre xaw ma nu xew suba gannaaw suba il n'est pas l'État il n'a pas l'État sur les épaules il n'a pas l'administration il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale c'est un député parmi d'autres et cetera alors à, à enseigne que su poser condition yooyu mais daf lay orner il il fait de la politique il profite aussi d'une ambiance qui lui est favorable d'un rapport de force qu'il juge favorable à lui mhm. ce qui n'est pas faux peut-être dans l'absolu mhm. mais est-ce que c'est suffisamment favorable pour que vous posez toutes les conditions qu'il veut mais il faut dire aussi que dans une négociation ou dans une épreuve de force tu places la barre au plafond mais maintenant si Après, si, si bon nga ne ça va. alors ci revendication yi boole na ci par exemple. Euh, sauf que nag entre nous revendication yi mu soulevé ça peut rencontrer l'assentiment de certains Sénégalais. Mm parce que dans une démocratie bon bon vous savez les écoutes et autres c'est parce que ça ce sont des instruments à la fois techniques et, et policiers et tout le monde sait que qu'on soit opposant ou gouvernant on a besoin de la police. Mm -hmm. bon maintenant les écoutes je crois savoir qu'elles sont ciblées. mais on n'écoute pas tout le monde. D'abord, on ne peut pas écouter tout le monde parce que ça coûterait cher. Deuxièmement, ce serait absurde du point de vue du résultat. On ne peut pas écouter le berger qui est là-bas à Ranerou. Euh, euh à quoi ça servirait Donc je me dis que les écoutes sont certainement ciblées, mmh. opérées par des professionnels. Mais il faut qu'on rappelle aussi aux Sénégalais, notamment aux opposants. Parce que parfois, quand ils se, quand ils se fâchent, ils disent des choses qui sont irréalistes. Un mm-hmm. jour, j'étais euh, sur le plateau de Balfadri en compagnie d'un opposant notoire, je ne veux pas citer son nom, il avait dit une ineptie. il avait dit quand je serai au pouvoir je, vais supprimer les fonds secrets j'ai rigolé j'ai compris que xamul mhm. parce que les fonds secrets là sont vitaux mhm. pour que la nation soit debout il faut des fonds secrets maintenant l'usage qu'on en fait comment on travaille là c'est un autre débat mhm. mais les fonds secrets en tant que tels doivent exister et il n'y a pas d'armée il y a des pays où il n'y a pas de gendarmerie la gendarmerie d'ailleurs c'est un Il y a des pays qui, qui ignorent jusqu'au mot gendarmerie. Mais encore que la gendarmerie comporte aussi faire de la police judiciaire. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que la police est tellement importante que sur la planète, sauf que la carte du monde, il y a des pays qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de garde nationale. Mais tu ne peux pas me citer le nom d'un pays qui n'a pas de police. Police Montagnac. Mm -hmm. Alors donc, même si nous gagnons police aussi, tu n'oublies la police, bon, moi, les gens disent la police nationale, mais moi je dirais la police d'État. Je préfère cette terminologie. La police, elle au service de... La gendarmerie est nationale, l'armée est nationale. Mais la police, en vérité, c'est une police d'État. Parce que dans, l'armée, il n'y a pas de police politique. Alors que dans la police, il y a une police politique. Il y a une entité qui qui qui s'occupe. lan nga bëgg police politique. non parce que c' à dire dama bëgg moo tax aussi dafa am instrument yoo xam ne bu leen damm bu leen yàq bu leen ŋaññ parce que yow soo toogee da nga koy soxla waaw on ne peut pas se passer de la police. mais mais nag comme moom beneen système lay indi est-ce que yaakaaruloo système boobu. Euh, muy muy mhm. mu dem ba police ak yooyu yëpp ñu xoolaat ko. non assemblée nationale ak yooyu. pour l'instant il est opposant mhm. il peut tout coucher sur le papier. il peut tout dire mais au contact des réalités on verra bien. Mhm. j'ajoute aussi que gis nga entre l'aspirant au et le titulaire du pouvoir vous n'avez plus la même personne. li ma la ah, gis nga ko. Mhm. am na ñoo xam ne lañ doon wax ak li ñuy def tey du benn. Mhm. entre l'aspirant au pouvoir et le titulaire du même pouvoir. Mhm. vous n'avez plus la même personne. bi nga koy laaj ak bi nga ko jotee. voilà d'accord alors euh, ci doléance yi boole na ci. amnistie ñu delloo seen ay droit Karim Wade Khalifa Sall donte ñooñu ñu ngi ci opposition bi ak euh, comme comme comme moom est-ce que yaakaar nga loolu muy loolu muy loolu muy demander su ñëwee est-ce que amul lu mu ko mën a yàqal ci avenir politique am ku mel ni Karim de ñëw revenir ak ses droits civiques et civils Khalifa Sall la même chose ñu bokk ku jëkk politique gi. xam nga xam nga xam nga xam nga il y a le discours qu'on prononce dans des circonstances précises pour accabler un gouvernement sonal ko parce que moom mu ngi ci bëre mu ngi ci épreuve de force mu ngi ci rapport de force boo xam ne bi il veut que ça penche en sa faveur waaye nag nit ki lépp gëm neexu doo xam. parce que déjà sonder les pensées dafa jafe à fortiori les arrière-pensées mhm. li wër te wóor c'est que Sonko son adversaire c'est Macky Sall mhm. mais il a aussi dans l'opposition des gens qui peuvent être jaloux mhm. on est en politique et chacun veut être premier on est en démocratie on est dans des compétitions électorales lui il arrive il y a cinq ans on ne connaissait pas Sonko ou en tout cas très peu de gens, peut-être les gens de sa corporation, les inspecteurs des impôts, etc. Il y a cinq ans, il n'avait pas une audience nationale. Mmh. Alors, Légui, il est là. En un temps record, non seulement il a dépassé, il a coiffé, mais il a même effacé mmh. certains opposants, qui étaient des opposants de grande envergure. Il les a effacés, dans l'opinion. Je ne parle pas dans les journées, parce qu'on a les dernières statistiques des dernières élections. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on ne peut pas retourner à ces statistiques-là. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je ne connais pas le poids électoral de Sonko. Je ne peux pas aussi en préjuger parce que j'évite de dire des bêtises. Mais li wër théorie, c'est que lui, il se tient li ko le haut du pavé moom daal moo fës moo nekk ci kaw. vous pensez que ça fait plaisir à certains qui sont ses concurrents mais il fait abstraction dafay mel ni xamul n des jaloux autour de lui pour bien accabler Macky Sall mu naan na Karim ñëw na Khalifa ñëw. na nangam ñëw d' abord c' est un joli discours. qui est bien reçu dans l'opinion mais au fond de lui-même est-ce qu'il souhaite ça moi aussi je ne peux pas sonder son cœur hein sinon je, je ferai un procès euh, comment on appelle ça euh, un procès d'intention d' mais ci euh, ci ci ci ni ñu gisee discours du président. Mhm. wax na ni tàllal na loxo ñi nga xam ni euh, mooy opposition bi ku jég politique gi wala ku mën a doon bu buntam tëjuwul tàllal na loxo euh, lan la bëgg wax pour yow ci tàllal na loxo boobu ndax dafa bëgg wax ni na jàmm am. parce que am na ñuy ruumandaat ay gouvernement d'union nationale parce que Ousmane Sonko tontu na ci loolu sax ni ñi ngi dégg lu mel noonu gouvernement d'union nationale mais moom bu ko ci kenn tudd parce que du mës a liggéey ak euh, Macky Sall ci àddina alors bu fekkee moom dafa wax loolu kële tàllal loxo est-ce que mën nañu njoxt loolu ñuy dégg muy gouvernement d'union nationale ne lu war a mën a nekk la ci situation bi ñu nekk pour yow. bon euh, liberté au rebond yi xam nga la main tendue du président de prime abord on ne peut que s'en féliciter. te man dama ragal ne après ce qui s'est passé là sa main est plus que jamais tendue vigoureusement tendue et peut-être sincèrement tendue. Hmm. non je, dis à la lumière de ce qu'on a vécu. Mmh. comme secousse. sincèrement tendue. non, je répète je, balance bien mes phrases. Mmh. ne à la lumière de ce qu'on a vécu comme épreuve. Hmm. dont il est conscient. dont il a reçu le message c'est lui-même qui l'a dit. Hmm. alors je crois que dans ces conditions-là je peux préjuger. que ça m'est tendu et vigoureusement tendu, proprement tendu et sincèrement tendu. Avant, j'aurais douté, mais après ce qui s'est passé, je peux y croire. Mm -hmm. Bon, mais je n'ai pas aussi un double décimètre pour mesurer la sincérité de qui que ce soit. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas de double décimètre pour mesurer la sincérité. Cela dit, maintenant, euh, gouvernement d'union nationale ou pas, cette main tendue du président, amna lu mu wone mooy li waxoon ci mhm. il ne faut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. bon nag cela veut dire qu'il rectifie la tir. parce que xam na ni opposition dafa am solo. opposition réceptacle la. day capter les frustrations dal di ko recycler pacifiquement et démocratiquement mais su nekkee opposition bi newu fi comme dispositif de captation des colères et de recyclage des colères recyclage pacifique et démocratique opposition bi su fi newul yëf yi colère bi su ñëwee ci président lay dal directement. c'est comme le poste de on dit que c'est un fusible mais en politique comme en électricité quel est le destin du, du fusible mooy njëkk a tàkk waaw sauter mhm. le destin du fusible est de sauter en mhm. politique comme en électricité mhm. alors euh, moom Ousmane Sonko actuellement ci euh, contrôle judiciaire la jël ah lañ ko teg. lañ ko teg ah, mooy mooy li nga xam ne moom. moom tànnul moom moom waaw je sais tànn ko mais li ma bëgg a wax mooy jëlul mandat de dépôt contrôle judiciaire la jël. Ah, loolu laa bëgg a expliquer ah, foofu. alors euh, am na ay contraintes yoo xam ne juge bi teg na ko ko am na ci lu mu jot a junj. d' te ku déglu discours bi xam ne respecté na li ko li ko juge bi wax. parce que nee na ko dossier bi bu ci wax. donte moom nee na ko bu ngeen ci waxee ma wax ci. mais fii léegi waxu leen ci man duma ci wax. alors comme nee na ko loolu bul ci wax loolu jot nañ ni passeport am jël na ko leneen loo xam ne aussi am nañ ci yaakaar mooy dinay dem souvent ci ci juge bi di di euh, di di di di signer foofu wala di wane présence am que mi ngi fi loolu yaakaar nga ni am na lu mu ko mën yàqal ci ci politique am donte moom nee na acteur politique la euh, kenn du ko tënk. bon li li wër te wër c'est que euh, le contrôle judiciaire ça n'a pas commencé avec euh, Ousmane Sonko. et ça ne disparaîtra pas avec Ousmane Sonko. Mhm. c'est pourquoi il faut avoir un respect scrupuleux des institutions. Mhm. parce que luñ tegoon la boobu Ousmane Sonko commencé gul sax di def politique. voilà. Mhm. ce qui veut dire que moom dafa ñëw euh, mu dal ci kawam te bés bu ko wàccee it mun naay dal ci kaw keneen ak keneen ak keneen. Mhm. te man gëm naa ne sax moom bés bu doonee président de la république am na yoo xam ne du ko mun a dindi lu demee ne ay contrôle judiciaire ak mise en examen yu demee noonu. parce que aussi il faut que que la justice fonctionne bon léegi nag li ci des moo di euh, naturellement le contrôle judiciaire c'est une semi-liberté. doonatul liberté totale bi nga amoon avant avant d'être euh, accusé et avant d'être face au juge. bon nag ce qui veut dire que qu'on le veuille ou non. inculpation la. à défaut à défaut de d'épée de Damoclès on peut dire que c'est une c'est demi épée de Damoclès. Mm -hmm. au-dessus de sa tête bon pour l'homme politique qu'il est. il mm-hmm. va sans dire que ça gêne aux entournures. parce que féex bi nga féexoon dootoo ko féex voilà loolu moom c'est c'est c'est la réalité mais quelque part je crois que euh, soo gisee ñu def lii c'est que lañ lañ mënoon a def te loi bi permettre ko. te peut-être ñoom bëggoon nañ koy def suñ ko defoon li muy jur maanaam maanaam lii espèce si saafara la. parce que kii soo ko yóbboon rëbës mun naa mbir yi demee neneen. loolu ñun ñoo ci teg suñu bët. ce qui veut dire que ñi def lii itam euh, ñoom itam daanaka euh, ils ont joué xam nañ li ñu def. Mhm. voilà. d' accord dafa mel ni président de la république junj na ko ci discours am ci introduction bi muy tàmbali. Mhm. que ni coow lii nga xam ne moo fi am li ci prérogative am mu téye ko ci ay loxoom li mu ci mën a def dina def. ndax loolu mën nañu njox par exemple lu bëri ci ay infraction yoo xam tegoon nañu ko ko euh, ci wàllu insurrection ci wàllu trouble à l'ordre public ak yooyu yëpp yooyu mën na mën na fi jógee peut-être kaawu viole bi nga xam ni moom c'est c'est autre chose yaakaar nga procédure bi mën a mujj ci loo xam ni du du compliqué xam nga euh, y a problème de fond et un de forme situation bu mel nii nga xam ne réew mi dafa yëngu il va sans dire que on peut on peut faire des entorses ak des dérogations à la règle générale mm-hmm. maanaam wax ci mais pour man sax le président war doone danaa def lii danaa def la la ñu demee noonu loolu du waru galam parce que c'est l'affaire de la justice bon on me dira que nag le président c'est la clé de voûte des institutions et que mhm. de toutes les façons réew am na foo xam ne su fa euh, tolloo moom mooy assumer mhm. même les juges ne peuvent plus assumer parce que moom rek mooy mun a assumer mhm. bon loolu c'est la constitution qui le veut ak et ces missions aussi sont des mais daal li ma gëm moo di yii waxi circonstance la rek moo tax mu teg ci moo tax mu yëy yàbbi ci mais li gënoon sax moo di du du ci du ci yàbbi mais le problème aussi c'est que soo ci su ci yëyul yàbbi ci apaisement du am moo tax situation yu mel nii xam nga c'est des situations difficiles à résoudre tu es obligé de prendre des des solutions qui sont un peu bâtardes maanaam d'un côté ti tu tu tu dans le domaine judiciaire mais de l'autre aussi tu te dis que la sauvegarde de la paix am na solo d'ailleurs loolu sax ça me permet encore de revenir sur un détail de la constitution parce que xam nga nee nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs man ma ne man ma ne dañ ci waroon a yokk loolu suma xalaat la dañ ci waroon a yokk un fragment de phrase waxuma sax une phrase de mais un fragment de phrase y compris le mandat en cours xam nga bon affaire bi daan na leer. mais ba ma ko waxee y a des gens qui m'ont dit oui mais la ce serait de la redondance de la tautologie. wala en aucun cas. voilà comme ni ko defee ci Niger. mais la constitution loolu rek loolu rek dafa dafa leeral surtout y compris le mandat en cours. xam nga la la constitution elle est écrite dans une langue d'emprunt. ñi ko fii làkk bëriwul. te mën nga koy làkk sax te tout le temps nga mokkal ko même nous qui parlons plus ou moins bien français nous baragouinons mais est-ce qu'on est-ce qu'on le maîtrise comme Jean d'Ormesson certainement pas bon alors donc c'est une constitution écrite dans une langue étrangère. alors loolu nag man je préfère ñu yokk ci une phrase qui crée la tautologie la redondance. en résumé. une constitution mal écrite et qui installe la paix dans le pays vaut mieux qu'une institution écrite de façon académiquement impeccable et qui plonge le pays et qui plonge le dans le chaos. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Euh, qu'est-ce que c'est que l'orthographe par rapport au salut d'un peuple et d'un pays? Voilà, c'est un peu des choses comme ça. D'accord. discours médiateur de la République Alioune Badara Cissé Euh, je pense suivre nga ko. Euh, mu wax euh, ci ci jafe-jafe yi moom itam daanaka xaw na am fu mu bokkee xalaat ak président ci wàllu jafe-jafe nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci li nga xam ne indi na fitna bi ak yooyu sàkku itam ñu fexe ba jàmm mën a am ak yooyu moom noo déggee discours am en tant que médiateur aussi de la République. bon xam nga moom sax il est un peu plus dans son rôle que Idrissa Seck bon parce que lui il est médiateur de la République et déjà le mot donc il peut se saisir de tout presque. Mhm. il s'y ajoute que moom xam nga ne moom il est membre fondateur de l'APR. Mhm. bon donc bon moom itam euh, le symbole est fort quand mhm. il s'implique. le discours qu'il a prononcé aussi est un discours très pointu très osé. à la limite même un peu trop libre. Bon, tout à fait ce qui n'est pas mauvais dans l'absolu d'ailleurs parce que dans dans dans des contextes comme ça euh, wax dëgg dafa baax. voilà donc man pense que il est un peu plus dans son rôle que Idrissa Seck. parce que sa mission déjà porte bien le nom médiation média médiateur médiation tout ça bon euh, bi APR la mais je crois savoir que les gens de Sonko peut-être ne verront pas euh, la casquette de membre fondateurs de l'APR. Mm -hmm. D'autant plus que même dans cette APR-là, moom euh, il n'a pas été des mieux servi mhm. Donc ce qui veut dire que euh, sa bonne foi, sa sincérité, sa sa sa posture neutre mun nañ koy gëm. D'accord. Voilà. voilà parce qu'il n'est pas couvert de privilèges. merci beaucoup euh, Babacar Justin Ndiaye bëggoon naa la gën a téye parce que namoon nañu la vraiment ci waxtaan ak yow te xam naa ne ñiy seetaan tam doyaluñu mais guddi te bëgg nañ la bàyyi nga dem noppalu ji. je vous euh, loolu moo tax mais bu fekkee am nga message boo xam ni danga koy passé rek ma bàyyi la nga nga nga passé. alors le message est un message de de comment on appelle ça de vœu. Mm -hmm. euh, et de rappel maanaam euh, li ñu yàlla may euh, li li li yàlla eh, yenn Macky Sall dafa rëy dafa rafet ci héritage bi en tant qu'héritage moom il est le lointain successeur de sengor après Senghor Abdou Diouf Ablaye wàdd ñëw na yàlla jox ko réew mi alors li ma bëgg rek moo di eh, ni ko suñ eh, mbokk yi nekk ci biti waxe ñu fexe ba le Sénégal reste un pays phare mhm. un pays locomotive un pays qui montre le chemin à l'Afrique je le dis nag sans voir midi à ma porte je le dis sans nombrilisme parce qu'il faut aussi respecter les autres pays je vous remercie. jërëjëf merci beaucoup mbokk yi doon ànd ak ñun ci seen édition spéciale bi tey ñu doon ci ànd ak euh, Babacar Justin Ndiaye moom xam-xamam màcc na ci jàngat wàllu politique moom lañ doon waxtaanal ci discours yi nga xam ni tukkee na ci président.